benn bi ci topp tam muy ay taxes yoo xam ne dañ koy fay fii ci Sénégal nga xam ne taxes yi état bu senegal moo koy fayeeku ku nekk xam na ne pooru Dakar dafa nekk port bu seer bokk na ci poor yi gën a seer su ngeen déggee ñett yi nga xam ne lim naa ko yépp benn bu ci nekk rek dafay indi yokkute bu dee ñaar yi muy jënd gi nga xam ñu ngi ko jënd ci bitim réew ak transport bi loolu daf ñuy estampé duñ ko mën a contrôler waaye bi ci topp tamit muy taxe yi nga xam ne état moo koy teg di ko fayeeku commerçant bi lottu na ci def ci wala dindi ci kon bu ngeen xoolee ligne bi li ko tàmbalee ci tàmbali ba ci jeexukaay bi amul lenn loo xam ne commerçant bi mën na ko ci kon benn responsable rek moo ci am muy état état nag kon war na xool naka lay jéem a wàññee taxe yooyu ba nga xam ne sénégalais bi dina mën a jot ci dund bi ci prix boo xam ne wasam dina ko mate waaye loolu pour mu am dafa am lu ko war a gunge mooy état faw mu wàññi train de vie am maanaam serrer la ceinture euh, loolu noonu bu amul rek jàpp naa ni fa ñu jëm du neex ndax ku nekk xam na ni réew mi metti na ñu jàll ci deuxième point bi muy lu jëm ci suukar si ndax suukar si li nga xam ne moom moo ci nekk mooy dafa nekk lu essentiel loo xam ne sénégalais bu nga daf koy soxla ñu jox ko benn nit mu monopoliser ko kooku rek moo ciy def ak dindi ñu gis ni loolu noonu du lu jaaru léegi nag loolu li ñu ciy plaider mooy ñu libéraliser ko comme ni ñu ko defee ci ciment bi ak yeneen produit yi waaye tamit ñuy proposer ñu amal ci politique économique bu bees politique économique bu bees bu bokkul ak bi nga xam ne moom moo fi nekkoon ci bu yàgg ba léegi te waxtu wuñ agsee fii rek bu anuñ jafe-jafe bu mel nii kon soxla nañ ci euh, ñu saafara ko mu jeex benn yoon ñëw ci ñetteelu point bi muy concurrence étrangère déloyale loolu nag yàgg nañ cee wax waa danañ ko di ci wax ba kere ñu ci am saafara dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu doy waar la ku ne xam na ni sénégalais yi buñ masaan di dem bitim réew di liggéey ak industrie yi nekk foofu jamono jii nii dem yombatul dañuy paas seen ay commande euh, légui nak ñoy non dañu mujj di envoyé seen éléments yi ñu ñëw ci suñu réew mi di installer wu ci marché yi di concurrence ak ñun ci anam bo xamné ne dëppoowul ak yoon loolu nag autorités yi yëg nañ ko wa ñu gis ni defu ci ben safara kon dañuy wo solennellement euh, le président de la république mu jël ci ay matuwaay yi ci war ngir régler euh, problème bobu définitif ndax lool nonu bu amul rek dafay nërmeel sunu économie ñaan ñu ko yàlla te sunu économie dañ ko war a sàmm kon ñi ngi leen di jaajëfal bu baax wasalaamaaleykum. leen di nuyu bu baax maa tudd Mamadou Sarr nekk secretaire général bu assise section bu Thiaroye ma yokk tuuti ci li fi suma collègue yi wax léegi ak président secretaire général ci li nga xam ne mooy augmentation des prix augmentation des prix comme ni ko. sama collègue yi depan dépendrul ci commerçant yi commerçant bi bu sañoon marchandise mi yomb ndax mu mën koo jaay ndax fi mu ne kenn ku ci Nyaral la nga daan jaay fukk Nyak koo jaay mënutoo jaay sax juróom ñaareel ba mooy pénurie du sucre ñàkk gi suukar ñàkk ci dëkk bi ak cher gum cher ñun dañoo wax ne état sénégal la neex ndax yor ay ay opérateur économie yu toll ne ñi fi ci assise ñii indi lépp ci réew mi tey jii suukar di manqué te li ko waral mooy kenn lañ ko jox kooku rek moo am droit def ci ak dindi ci état Sénégal nag am naa ay layam moom nee nañ ki nga xam ne moo yor suukar si su fekkente ne état bëgg na cee dugal loxoom wala yeneen commerçant bëgg cee dugal loxoom mu menacé ne dafay licencier ay nit waaye foofu aussi dañuy fàttali état Sénégal ne ko nekkatuñu ci colonisation